këj këj këj këj këj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

liggéeyu ma yàlla suñu ma mu jox ma def donc euh, def naa wóllare ak reconnaissance bi moo tax lii am ah, euh, mu nekk xale bu nangu xale ne nit ku baax waaw mm. sax donc euh, damay am satisfaction ah déployer comme yaa ngi koy defal ñeneen ñu bokk la moom ki la gën jege gën cee mm. ku noonu rek la demee wax dëgg yàlla defuma ko su ma ko war a defee. cër yaay ni mu fooree. fan nga jaar ak Pawlish ba mu ba mu ne la bii fii rek ak nekk ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy yoon. ak ah, Pawlish ni mu naqaree canaliser. non non du nit koo xamante ne dafa naqaree canaliser mën na nekk peut être ci rôle bi muy joué par rapport ak. parce que yow ku ne ne bii dafa tuuti canaliser voilà donc noonu la demee rek ci Pawlish Mbaye dafa Ablaye Mbaye euh, ba bi nga xamante ne moom mooy xale bi nga xam ne moom euh, sant yàlla sant yàlla c'était pas évident waaw xale la boo xamante ne dëgg yàlla xale bu am jom day def ba def loo xamante ne sax mënul waaye nag ndokk bi nga xamante ne yàlla boole na ko soxna si xam ne da koy comprendre te gudd na ko ci li nga xamante ne mooy nit ñi nga xamante parce que man maa jëma toolu suuf yombul dëgg donc toolu xam nga ne uti naa ko soxnaam ndax gis nga eh, eh, eh, ni soxnaam dépassé ni mu yor ah jaara loo ko loo ko santul rek wala loo ko waxul rek xam nga donc muy jigéen joo xamante ne jigéen ji ñu yar suñu ko wane jigéen bu baax ay mbokkam baax ko bëgg yaayam baax ay nijaayam baax donc baax gi ñu baax moo tax ñu jóg tax a jóg bu ñu xooloon police may ni nga xamante ne moo nekk ci milieu médiatique bi moom ak yu ni mel ku ko may sa nga xam ne ñoom moom la may seen doom xam nañ ne xale bu am doom xale bu baax parce que amul benn morom boo xamante ne yaa ngi dégg sama doogu ci kii mm. te wax dëgg yàlla ñu ngi teg jaara fi ñu ko war a teg ngi sant yàlla def na li nga xamante ne moom la wax digganteem ay mbokkam ak digganteem li nga xamante ne ñoom la ko yàlla boole muy ay mbokki soxnaam dañuy sant yàlla rek ñu gën a mu nekk ci nga xamante ne moom d'accord parlons peut-être un peu de l'actualité qui se la toile euh, la grève des animateurs Abba Cheikh Sarr boo ci est-ce que est-ce que un animateur war na def loolu. non je pense que. saxaar na ne mooy bàyyi animateur yi avant na ko doon soxla. est-ce que tu tu penses que en tant que ténor ci seen seen structure yi nekk war nañ def loolu. waaw. loolu est-ce que am na lu mu leen apporté seen kanam. non non non ay apporté ak yu ni mel. ah gis sama xarit baa ngi nii moom laa leen wax léegi mooy yaay jaar. waaw xarit Sarr rek mu toog noonu après ma kii kaay toog kaay kaay dama am lu may lay wax nii. amul lu mu leen di apporté seen carrière. ne pas en parler. Je ne sais pas le moment. Et puis j'ai pas de somme. Je me suis wax naa fekk laay doon. Je me suis wax naa fekk laay doon. Et puis man j'ai pas peur de dire des choses de quelqu'un. Comme j'ai pas suivi et que j'étais déjà fan yii yëpp dafa am ci li ma nekkoon te li ma nekkoon mooy li nga xamante ne mooy. Euh, sama feebaru papa ji nga xamante ne dem na récemment donc du coup wallaay azim dama ne sama akulaay daal laa ñu paas du ma ci mën a wax dara du ma ci mën a sori nooy cumuler entre nekk ci bànneex ak nekk ci naqar tey yaa ngi ci naqar yaa ngi ci bànneex kër Pawlish mais de l'autre côté ci kër Papa Gaston naqar nga koy dundee donc bis bi naka lay surmonter loolu euh, damay sant yàlla parce que ak mi def naa ne bu ma reetaanee sax war naa jaaxal waaw sant yàlla suñu borom la loolu su dëgg man moom pexe décédé au mois d'août après après muumi après kinni après sama yaay après pergas donc ce que j'ai suivi cette année sant yàlla yàlla suñu borom mooy ki nga xamante ne moom moo mën dëgg moo leen soxla moo leen su ma xëccoo ak moom écran bi continue moo leen di fekk li leen fi yóbbu li leen yóbbu wax dëgg yàlla duñu fi bàyyi Père Gaston loo mujj déggante moom. Eh, lu ma mujj déggante moom lu ma dégg dund ak moom. parce que bu jot bu ñuy reerandoo. waaw hmm. te loolu lu ñu gisee woon la. comme dafa tawat da ngay dem nekk ak ah eh, ba ni nga xamante ne moom mooy ñaari fan. mu comme ñu koy waxee sax. Eh, bokk naa ci ñi ko mujjee gis daanaka. sant yàlla ah. sant parce que man des gens qui mes wax dëgg yàlla du ma di di wax ci ñoom maa ngi koy wax à chaque fois du ma du ma damay nga xamante ne moom war loolu ma diggante sama borom ak ñoom ma di wax wax dëgg yàlla du ma di expliquer du Sénégal kenn dootu tey jii bu ñu ma xamee ba may nekk à travers la télévision su ngay contrat lépp lépp lu fekk yëpp moo ko waxtaanee yëpp fépp fu mu woon di nekk ci télé mooy dem toog wax donc sant yàlla suñu borom euh, di ko yàlla jëlee ci ay anam yoo xamante ni dëgg yàlla yu yu taw féex ñuy sant yàlla suñu borom si pare bi daal mhm. bu la yàlla dimbalee nga bokk ci moment yooyu da am taw mhm. ban observation nga am ci retour waal yi foofu surtout deux dates yi nga xam ne ñu bëri dañ ne fiasco dafa am expérience bu mag ci ci événementiel ce que loolu nga gis wala est que Wally date yi ni mu ko jëlee il a mal choisi teg date yooyu parce que deux dernières soirées e ñu bëri na leen dafa que est que am nga observation. mais tey ñeente. li ma la que am la dafa jafe Bijou nag xaaral. yow am la dafa jafe. am nga bu jafee tamit que loolu moom. waaw wax ma ci tuuti ci laay nekk. waaw wax ma ne du actualité dañu nekk ci euh, euh, ci euh, naka koy waxatee ci ngénte bi. ko gisee wala ban jàngat la non ma si wax xam parce que on tend vers et que moo tax si loolu. ci loolu quoi. ok ok Pawlish Waly. ne déggoo ñuy wax bii maar ah, moo tax man la man kay bëggoon nga wax lépp benn yoon la xam naa noo waxaat. doo ci wax d' accord Pawlish et Waly Ballago Seck y' a quelque chose dedans wala. maa ngi nii toog man c'est Wally. Wally en personne je veux dire. j'ai dit man c'est Wally. mais Bijou tu n'es pas Wally. ok Wally en personne laa wax. Wally mi ngi nii toog su lépp lu ma defal police bi c'est grâce à Wally Seck. tu trouves ni am na. dégg nga loolu. déggu ma waaw hmm. nday Wally Seck man mii toog. Ah. lépp lu ma defal police bi hmm. ku ma présenté ku tax ma xam police. Wally kon lépp lu ma ko defal Wally. dégg nga loolu. pourquoi ñu bëgg à chaque fois Wally def lépp tey jii nit ki boo nekkee ak moom. nga war koo jëriñ war ngaa fexe ba ñi nga xam ne mënuñu jot si moom wala mënuñu tooy mënutuñ mënutuñoo jot ci ñoom nga fexe ba def seen diggante ñu ñu nekk Bijou link la nekk ci Wally ak ñeneen mais Wally il peut pas satisfaire tout le monde xamante ne il a besoin de satisfaction jaañ ah. waaw ah, waaw tey fifty mën na nekk gàddu koor Wally Seck mais am na benn instant boo xam ne Wally mënul def leen bii su jege na Wally mën na ko def lan lay hésité loolooy see relation bu baax loolooy nit ki nga am ay nit yu baax ci nit tu penses pas de Wally non les propos de Pawlish euh, n'ont pas plu à Wally moo li muy wax bu ma naqari woon man mii jóge Wally la personne Wally a bëgg ko Pawlish déggoo ma de parce que moom laa bokkal mooy wax Wally yéen saa wax de li ma wax dama ne tey lépp lu ma defal Pawlish wala népp lu ma mel ak Pawlish Mbaye Wally Seck hmm. propos yooyu laa la wax bu doon lu naqari Wally man Bijou Ngoné du ngeen ma fi gis waale ma gën a Pawlish xanaa li ma wax dafa leer parce que moom laa bokkal mooy sama direct bu ne simila ak Salla maa moom ñooy daw ànd donc tey mën nañ fi xaar waale wala daf la yabal yow la yabal man mii bu ngeen ma ko gisee gis ngeen waale yéen nag du ngeen gis ci lu négatif rek hmm. yéen a ko gis nit nag moom du du lépp ngay mën a wax parce que tey bu ma fi ñëwul woon du ngeen taafantoo te bu ngeen ma gisee benn dëju Père Gaston mën ngeen ne am na lu tax alors que dara du am te tey jii Père Gaston mel na ci bijou noo xamante ne li ma la wax li ma mel ci Pawlish Mbaye noonu doon laaj Pawlish laaj ko a marqué dina ne bijou Ngoné ak Wally Seck bu ñu gisee doom ji nga xam ne Pawlish tuddee na ko tuddee na ko Seydina Wally Seck ñaar tuddee loolu bu mais yaay waa de Seydina Mouhamed la bëgg police bu ngeen ko bàyyi woon doom yi dégg ko li ma de ñaari ñëpp doorama biis ngoon la koy dafa ne day biis ngoon bu góor ak biis ngoon bu jigéen ma ne ko mukk ci kër àddina Seydina Mouhamed lañu bëgg moom nga bëgg te ci laa jóge ci 40 jours yi ma la koy ñaan di la ko dagaan ci gi nga xamante ne jóge naa ko tuddee ko Seydina Muhammad ko bëgg la def waaye amul problème turandoo de sama waa ji mënut a soppante ñu nit a gi ñaan kër nit a gi ñaan doom te yàlla may la ko suñu borom may ma ñaari bant dama koy sante suñu borom nit ku ne ci àddina bésam bii la am sama bés bi mooy sama lépp ci àddina mooy sama kër mooy sama bisu bàmmeel mooy sama mooy sama lépp parce que nit ku ne sama àddina xanaa xamoo bés bii la ñëpp di ñaan ci yàlla nit dund na ba deet amul bant amul bant amul mool amul xeer amul kew amul lenn man suñu borom may ma ma am ñaari bant muy ji ak ji moom dama koo dagg su ma nee ji naan ji moom yàlla may ma sutal ma am ay ay bant yu tudd ji moom ma tuddee ko Seydina Muhammad ak biisu jagan di gërëm sama xarit Awa Balde di gërëm Awa Balde Awa Balde dama ko gërëm li dama war ko gërëm mooy lan bés bi bu ñëwul woon mu ñaaw gërëm Awa Balde di ko yàlla yàlla sutaan ko di ko yàlla yàlla sal ko di ko ñaanal yàlla yàlla teg darajaay Seydina Muhammad te moo ma teral moo ma jàppale moo xam maay kan di ki ma indil lii mu soxna jaara naa ñaanal man sëy man rek risque la gàtt nga ñaaw nga sëy man risque la li ma boole yëpp daa bari ah, mu gëm mu muñ tëxul xool li ma neex xool ko naq lépp dafa sëy te yaram tax ba yàlla indil ko lii nit sëy na ba dee ci kër goom piscine sato ki lépp booy dugg lépp dina topp amuñu bant amuñu xeer amuñu leen ma yàlla may ma bant ci li tax mu am ko daka mu mu ko muy dégg lu ne di daju ne yàlla sagal ko suutarak moo tax yàlla may ko ji moo yàlla may ko moo yàlla mu répète ko yàlla may ko ji moo répète ba yàlla may ko ji moo mayaat ko moo mais mais mais tur bi ñëw si tur bi. ci tur bi Pawlish tur bi nga xam ne léeg-léeg seen jërëjëf bi muy yonent bi léeg-léeg lañu seen jàmm muy Seydina Muhammad yàlla may ko yàlla may ko jàmm may ko muñ may ko sutura parce que yàlla li muy digaale ci doomu aadama mooy lan du dugal kenn dinaa la may kër du dugal kenn dinaa la may doom dinaa la dinga gudd fan. naa la may xaay yaay yàlla diggaale ko kenn ci àdduna diggaale ko kenn may yàlla may ma ñaari ñaari bant yu leer nañ yoo xam ne moo tax dof des mu jik na ma def nii koo maytul daal ngi leen maa ngi woon sama bopp étape ba baxee ba tey maay xew maa maa ngi leen koy ba tey maay kan bala ngeen maa bàyyi wala ngeen ma maa xam ma dugg biir suuf bi Mohamed li nga jël delluwaat ko biisu mu dem rafetlu si moo ko mérito nit ki la nga mérito rek lan lay jox dafa mérito ñu dikkee ko tur parce que sama yaay la li mérito la mais tur bu góor bi nga tuddee ko yonent bi lan la da nga ko mës a gént yonent bi la ñu wax muy Seydou naa feeñu yonent bi mooy moo sàkk ñëpp moo bind ñëpp leeram la ni Seydou Ndiaye muy Seydina Muhammad ku ko sopp dem àjjana mm. ku ko yaakaar dem àjjana ku ko tuddee doom sa yàpp yaba aramal na safara man eh, dèjà sama yàpp yaramal dèjà man ma maay àjjana fi daw sama par force <laughs> ah, ah. Ah, yow Mouhamed ma ko de ma ko ma ko de yéen bi ne ku ko tuddee doom sa yàpp yaba aramal na safara daa ko tuddee sama yàpp yaram di dégg safara waaw parce que soo daxa wala li saa sa